di rek ak kenn ci ñu mu faral ci partem di Mané kon ma bàyyi leen ak Mané mu jox leen détail yu jàpp Idrissa Seck par la police à l'instant nag muy ci biir auto police bi jàpp nañ itam ñeneen responsable opposition bi Malick Gakou ak Thierno Bocoum sax am na ñoo xam lu xew boobu jamono yi. waaw donc actuellement bu nekk nii jàppale ñu ne que nekk mu ngi koy yóbbu nii. donc bon résultat yi ñu xeex aussi kan ñu ngi reporté. te présentement police dugal na ko ci code police ñu ngi leen di ñu leen toog parce que tamit bàyyi leen. donc voilà parce que da doon wax waa ji may doon mu mu am droit de de ko doon. mu ne ko bon voilà. mais nag surtout bon ñun loi bi may nañu ko. mais présentement gars yi dañu ko dañu ko jàpp. mais da ngeen doon marché léegi léegi lan moo tax ngeen persister def ko alors que tere am na préfet nee na mu ngi def manifestation devant l'Assemblée lan moo tax ngeen ne ñu koy def. je pose une question rek de waxuma war leen ko def dama ne lu tax malgré terrain préfet Idrissa Seck ci boppam ak yéen waa réew mi waaw wax dëgg yow seen xoolal day démocratique. donc yoon may nañu ñu ñu ñu ñu marché. looloo war a xam moom dafa nekk leader. waaw pour pour def ko. ah soo gaañuñu kenn ci yéen gaañuñu kenn. bon gaañuñu kenn mais ñu ngi tiire actuellement mu ngi nii ci côté politique. donc ñu ngi koy yóbbu. ñu ngi koy yóbbu ñu ngi leen xamoo xamoo fu ñu koy yóbbu. yor ko sax parce que côté politique taxaw na. waaw actuellement taxaw na aussi. donc ñu doon tam ñu ngi taxaw di leen seetaan. donc voilà. très bien jërëjëf maa ne bu parti ñoom